mbokk yi sëppaleeku jamono Walfadjri ñu am mbégte feggowaat ak yéen ni koy defee dimanche bu jot ci seen émission euh, sortie sortie bu tey ji euh, ñu dalal Moundiaye euh, Cissé njiital ONG 3D Moune Ndiaye du def lu dul euh, nuyu ko laataa ñuy gën a xuus ci waxtaan bi Moune Ndiaye ñu ngi lay nuyu. maa lay nuyu Awa Diop di nuyu sénégalaises yi ak sénégalais ñuy seetaan yëpp fépp ñu mën a nekk ci Sénégal. di ñaan émission bi euh, njariñ jóge ci. ñu mm-hmm. jariñ askan wi ci ay leeral. Mm-hmm. leeral moom yaakaar naa ne askan wi soxla nañ ko rawatina ci euh, dialogue politique bi nga xamante ne wala dialogue national c'est selon. ci li nga xam ne moom moo ci tukkee jëm euh, ci charte gu yees gi jëm euh, ci code électoral bi te ñu validé ko lundi bi ñu génn ci assemblée nationale yéen ngeen nekkoon partie prenante mën nañu wax ne euh, facilitateur ngeen woon ci dialogue boobu ñu bëri li ñu déduire ci dialogue bi moom moo di ne jurul njëriñ ndax dafa bëri des points de discorde ci loi bi nga xamante ne yóbbu nañ ko assemblée nationale mu njaay waaw jàpp naa ne sentiment boobu bokk na ci sentiment yi ñun ñi gën a am que li taxoon jalag bi jóg moo doon buñ ci jógee bu ñuy dem élection du am ay njàmbat du am contestation bu ñu jógee élection tam du am njàmbat wala buy am jàmbat jàmbat yi du bari mhm. mais tey bu fekkee looloo taxoon jóg dialogue bi loolu amul ndaxte demaguñu élection sax contestation yi commencé mars ak donc bu ñu demee élection ak bu ñu fa jógee donc li taxoon jub dialogue bi mooy euh, acteurs politiques yi am seen biir confiance mën a dem ci ay mm-hmm. mais booy évarue li mu jur ci côté boobu mooy amul ndax mm-hmm. contestation yi commencé na mm-hmm. boo ko jàppee noonu mën na wax effectivement li ko taxoon jug euh, atteindre objectif yi à cent pour cent maintenant li ko waral peut-être mun nañ ci xuus. waaw li ko waral mooy euh, dafa am ci euh, li nga xamante ne moom moo amul ay déggoo juróomi ponk yoo xamante ne dafa politique ci juróomi ponk yooyu dafa am ñaari ponk yoo xam ne daf ca dafa concerné avenir politique Euh, ñaari njoñ ñaari kilifa ci réew mi mhm. muy xarim ak xalifa donc tey dialogue bu lu mu mën a jur jur jur jur te ñaar ñooñu seen avenir politique rek la ko donc sentiment bi rek la mënoon def mhm. tey buñ ci deful woon dara dara dara dara muy mode élection yi muy financement parti yi muy rationalisation parti audit bi évaluation bi tey bu ñu jëloon ponk boobu rek te nga xam ne moo concerné euh, avenir kii di xalifa Sall ak avenir kii du Karim Wade buñ ko ci dugaloon rek jàpp naa ne mën nañ jàpp ne sax dialogue bi réussir na mm-hmm. ndax bu ñuy dialogue c'est pour arriver ay déggo yoo xamante ne euh, acteurs yi nañ ci gis seen bopp mm-hmm. mais loolu moo moo ñuural soow mi ñàkk déggoo boobu ci juróomi ponk yooyu nekk na lu ñuural dialogue bi ndaxte quand même ñoom dañu am ay nit ñu nekk seen ginnaaw boo xoolee xalifa li ñuy représenté ci mbooloo ci ñu ko gëm ci alliance ñu ko ànd ak moom Karim Wade moom mm-hmm. PDS ñu représenté ci mbooloo nga xam ne PDS euh, ñooy opposition majoritaire ñoo mun nañ ne mun nañ ne ñooy jiitu opposition bi ci parlementaire mm-hmm. euh, opposition parlementaire euh, donc ñooñu boo leen defee dialogue ba mu jeex te ñaar ñooñu seen cas rek la ko mënul woon dañu nekk leneen lu dul lii Mhm. mais tey euh, ci point de désaccord yooyu ñi nga ko waxee cinq la mais dañu jàpp ne euh, su ci déggoo amul ci dialogue bi ki nga war xam ne mooy arbitré mooy euh, le chef de l'État mm-hmm. également loolu ça pose problème pour être jugé parti également est-ce que point-là vous l'avez posé sur la table lors des, des négociations point boobu moo jitu ci recommandation yëpp ci dialogue bi audit bi nga xam ne def nañ ko ci dialogue bi audit fichier bi point boobu la jëkk génn ne dañu war a xool article L trente et un ak L trente boobu moo nekk léegi article vingt neuf ak trente ay article boobu en fait sax article bu fi yàgg la article boobu tey jii sax même Khalifa Sall voté woon na ko biñ ko fii def parce que depuis ar code quatre vingt douze bi la euh, ñi ko ñi defoon code consensuel boobu ñoo ko ci dugaloon mhm. mooy xañ ak ak yelleefu nit ki nga xamante ne dañ ko daan mu tëdd kaso alors mais bi bi muy am musul indi problème ci Sénégal parce que Abdou Diouf fii la ko fi bàyyi fekk bàyyi ko fi Abdoulaye Wade fii la ko fekk bàyyi fi mais li ci am mooy muy Abdou Diouf muy Abdoulaye Wade kenn musul si teg sa adversaire politique daan ko ba nga xam ne ñàkk na droit am parce que buñ leen jàppaan même bu ñu jàppee Idriss Seck dañ ko defal après non lieu mhm. da amul daan bu ñu jàppee Ablaye Wade bi ko Ablaye Wade bi ko am daan mais avec président Macky Sall ñi mu jàpp dañu fa am daan tey bu fekkoon ne ñoom Khalifa Sall ak Karim Wade amul daan bu mujjee ci tëdd kaso article bi kenn ko wax mhm. parce que yàgg na ci code bi depuis quatre-vingt-douze donc article bi def na lu mat presque 92 2002 2012 ba presque 2022 def na presque 30 à 40 ans ci code bi waaye li tax musul indi coow mooy musul président yi fi nekk musuñu tëj seen adversaire ba daan ko mu tëdd kaso daan na leen téye Abdou Diouf daan na téye Abdoulaye Wade mhm. mais procès du dëgg mhm. daan na ko après bàyyi ko Abdoulaye Wade na fi Idrissa Seck mais daan ko da ko téye muy détention préventive comme ça mais demuñu procès mu daan ko cela bii di am des témoins président bi fi nekk dafa daan dafa dafa waaw moom à travers la justice ñi nga xam ne ay concurrent am lañ da leen daan mais mooy euh, li may wax ni euh, tey il est jugé parti euh, tey jii ñëpp jàpp nañu ne il utilise la justice à des fins purement politiques wala politicienne. waaw loolu lu ñu mës a dénoncé la xam nga justice bi dañ ko war a ndëppal bu ñu justice bi moom loo ci mënti dégg mooy dañ ko war a ndëppal parce que justice boo xamante ne nii tëddul ndey ndey ji seex moom la sentiment sénégalais yi jàpp boo xoolee sénégalais yëpp dañ jàpp ne suñu justice tëddul ndax dañu war a réformer suñu système judiciaire mm. loolu boo xoolee même magistrat yi wax nañ ko à travers l'UMS ànd nañ ci organisation de défense des droits de donc suñu système judiciaire moom lu war a réformer dañu war am un juge des libertés. Mhm. wàññi doole procureur. ba pare fexe ba président de la république ak ministre de la justice lu ñu am doole trop ci euh, euh, conseil supérieur de la magistrature parce que ku lëmb sa xam sa sànqal lëmb sa sutura ku la abal bët fu ko neex ngay xool. Mhm. dafa am ay yu ay épée de Damoclès bu nekk ci juge yi parce que juge yi euh, bu ñu toll ci retraite dañuy fragile aussi. Mm. affecté leen. Euh, wala wàññi wala yokk seen contrat dafa yomb ci koo xam ne peut-être euh, donc dafay fragiliser dafay mettre juge yi dans une situation de pré de benn précarité boo xamante ne ni euh, loo wax wax affaire indépendance sans affaire indépendance yi affaire nit ki la dina toll foo xamante ne aussi nit ki bu xoolee njabootam xool xool li ko wër mun na am benn faiblesse bu muy am vis-à-vis du pouvoir de sorte que war nañ dëppal suñu justice bi réforme suñu système ba nga xam ne dañuy am justice bu indépendante bu boobaa exécutif du ko du ko du ko du ko du ko. du ko conditionné du ko conditionné ba koy wan fu mu xool. mais tey jii boo demee assemblée. Uh-huh. dafa am muy législative pouvoir législatif dafa am njiitam. muy présent mais nga dem mais ba tey même pour te dire mais y a la forme nga dem mu am l'exécutif am na patron muy la président de la République justice am dafa am patron boppam moom boppam. mais mënoo jël président de la République mu nga xam ne exécutif la mu présider le, le pouvoir judiciaire à travers le conseil supérieur de la magistrature. mais euh, mu Ndiaye ñiy légiférer mais ñiy légiférer également ñoom tamit euh, indépendance boobu ñuy xaar ci ñoom ñoom amuñu ko ci vote euh, loi code de code électoral bi lu ci bëri feeñ na ci bu fekkee ne y a eu des manquements y eu des désaccords xanaa nag mënoon na am ay amendements ñu waxtaanee ko mais bana utiliser la majorité mécanique également. xam nga loolu dafay laaj ñu soppi ni ñuy tànnee député yi. mais tant que ñu ngi tànnee député nii yooyu tànnee ñuy nekk ay député parti munoo am leneen lu dul lii bu amee concordance de majorité li ñuy wax concordance de majorité que majorité présidentielle ànd ak majorité parlementaire mais toujours les votes seront mécaniques kooku moom mënul pour loolu dañ il faut ñu changer mode d'élection des euh, des députés de sort que dina am euh, pàcc boo xamante ne ci député yi dañuy sentir ne askan wi leen fal mais majorité mécanique moom foo gis mu am concordance de majorité parlementaire ak majorité euh, présidentielle il y a toujours ces votes mécaniques là mm. donc la révolution c'est de changer le mode d'élection des députés de sorte que ce soit plus euh, sur euh, euh, le modèle comme, comme que nous avons aujourd'hui qui favorise lo disons l'élection des députés sur la base de liste de partis ou de mm. coalition de partis bu fekkee ne loolu la mais mais toujours parce que boo comporté woon neneen bu ñuy defaat seen liste député duñu ci dugal mhm. wala ñu lay pousse doo dekk ay président de commission donc mode d' élection mooy problème bi mhm. noonu la amee ci euh, pouvoir législatif noonu la amee ci pouvoir judiciaire juge moom ñu seen bopp procureur am doole di gis nga fi condamné nañ fi nit condamné nañ fi nit tëddu mhm. parce que procureur deful mandat de dépôt tey même bu juge condamné nit bu procureur bu jëf na fi kaawu euh, euh, procès euh, Téliko ak kii. Madiambal ñu juge bi condamné na xam na mais te dul parce que procureur doole procureur moo bari te procureur kan moo kan la fi nekkal. ku ko fi teg président ku muy déggal. donc dañu war a réformer suñu système judiciaire et je crois que président Macky Sall war na jël recul def ko parce que pour les générations futures parce que justice bu bu bu amulee doole. justice bu amulee confiance nit ñi bu ñu amulee confiance justice mooy indi ay fayantoo mooy indi ñàkk ñàkk ñàkk wóolu ba defal sa bopp fajal sa bopp boo jàppee ne sàcc bi moo ko yóbboo kaso bu demee itam day gënaat suba mm-hmm. mooy tax dëkk yu bëri nga gis ñuy fajal seen bopp di di dóor sàcc bay taal sàcc tu vois que je dire boo jàppee ne yow tamit boo amee ku am ndombal tànk euh, problème boo leen demee mu mu oyofal la ci wàllu yoon mooy indi ñun di soulever wu di génn di jéem a fajal seen bopp gis nga euh, kaaw Sonko bu fekkoon ne xam nañ ne bu demee uyu ji euh, justice dina ko def ci yoon ba mu wóor na ñun dañu ko def yoon ñun dañuy seetaan mu dem mais ñun dañoo génne jàpp ne bu demee ñu téye ko dafay mel dafay nekk si bopp nit ñi ba mu wóor na ñii daal bu demee dañ koy téye bu defeex bu deful. alors que pourtant doon na baax ñu leeral. moom mais avec tous ces manquements de nos trois pouvoirs tey jii est-ce qu'on peut se prévaloir d'une démocratie au Sénégal. oui on peut, dire une démocratie quand même parce que. chancelante la démocratie elle doit toujours se consolider du lu ñuy téye muy nelaw ku yokkul yaa wàññi mun nañ ne démocratie bi mu mënoon na gën a avancer que fi ñu toll. mais démocratie am na ndax ñu ngi dem élection démocratie am na ñu ngi wax ci télé yi avec liberté d'expression démocratie am na ndax du nit ku bu waxee rek ñu tëj ko donc mënoo ne amul démocratie mais ban démocratie la ñu am. mais depuis un certain temps a une restriction des dañ ko war a dañ ko war a njongal cest à démocratie dañ koy njongal tey jii boo xoolee si wàllum démocratie ci wàllum élection par exemple ñëpp xam nañ ne président Abdou Diouf teg na fi ay jéego président Abdou Diouf moo ñu indil code consensuel bu 92 loolu jéego la ci démocratie. code consensuel moo tax boo demee tey ci euh, bureau de vote nga mun a jël juróom bulletin yi la neex nga dugg ci bañ kàcc ci isoloir mu njëkk mm-hmm. amuloo code consensuel moo tax ñu am encre indélébile boo votee benn dootoo mën voté waat code consensuel moo tax parti yi am représentant ci bureau de vote yi nga xam ne urne yi dootuñu ko buure code consensuel moo tax ñu am ONEL waaw organisation des élections ku koy superviser koo xam ne farul fenn loolu si Abdou Diouf la ne ne déet mu am ay jafe-jafe wóoluwuñu ministre de l' mu indi fi général xam nga loolu da xam ni kii ak loo ko mënte waxal teg na fi ay jéego du dëgg. Mhm. Abdoulaye Wade tam bi mu ñëwee mu xool ne même ONEL bi ñu fi tegoon muy superviser élection yi amul doole ji ci war parce que organe du woon organe permanent daraan dañ ko daan teg élection passé mu jeex mu indi Sénat. Mhm. mu mu nekk organ bu permanent ba pare nekk ci région yëpp du mm-hmm. eh, di def supervision des élections loolu jéego la ñu ne déet ñu ne ko wëy euh, euh, une personnalité neutre mu bàyyi fi ministre de l' intérieur ministre des élections ah. yooyu ay exemple yoo xam ne ay jéego la parce que tey opposition yàgg na wax ne wóolul ministre de l' intérieur wóolul ministre pourtant on a de bons ministres de l' mais boo ko boolee ci bu buñ ko wóolu c'est normal parce que dañuy far noo tax doon na baax ñu jël ministre de l'intérieur jéggal jéggal ko wàllum élection bàyyi ko muy gérer côté sécurité li nekk ci jamono ji ñu toll ci ay problème mu sécurité ci àdduna bi affaire terrorisme yi rek jar na ministre de l'intérieur consacré wu ci affaire sécurité des personnes et des biens. ak administration territoriale. xam nga loolu tey. boo jëloon waaw mais na. non damay terminer ci boobu dama ne. loolu li ko loolu ko opposition bi laaj président Macky war na ko mun def. waaw ah, loolu laa la bëgg a la ak yi ñu am ci Abdou Diouf am ko ci Abdoulaye Wade pourquoi ci avec Macky Sall ñu ko consolider est-ce que la politique a pris le dessus sur nos institutions et le fonctionnement de nos institutions. calcul la calcul politique mooy tax président ñu koy soumettre ay propositions muy muy muy bañ mais bu fekkee ne intérêt démocratie rek la war na ko mun nangu. qu'est-ce que ça lui coûte pour man président Macky Sall ne ok vous voulez un organe indépendant qui organise les élections te man wóolu naa sama bopp kay d'accord on met une délégation générale aux élections comme ni ko proposé dialogue bi ministre de l'intérieur nga ne ko gérer tout ce qui est sécurité parce que sécurité dafa dafa dafa jamono ji toll ni enjeu géostratégique la hmm. ñu ngi dem ci dëkk boo xamante ne dafa am pétrole am gaz nga xam ne mën nañ ñu par par les moyens mën nañu déstabiliser par tous les moyens parce que firme yi yu mag yi lobby yu mag yi seen intérêt mooy Sénégal ba ñu nekk stabilité pendant que ñuy xeex suñu biir ñuy sàcc suñu pétrole di sàcc suñu gaz mais loolu am Mali pendant que ñuy jaxasoo seen biir euh, ay ay état sax di leen sàcc di jël seen ressources naturelles di ko génne loolu am Niger yaa jaxase ñii ñi duñu tal lu dul rayante seen biir mu am ñoo xam dañuy ñëw di pomper seen ressource naturelle di ko yóbbu donc problème u sécurité géo enjeu géostratégique la alors donc mun na ne bon sécurité terrorisme ak menaces si jóge fu nekk nañu jël ministre de l'intérieur wu que de ça élection rek mën na doxloo ministre ministre élection rek mën na teree nelaw nit ñu jël kenn jox ko ko koo xam ne féetewul fenn confiance ñëw ñu am jàmm parce que dëkk yu bëri yu am fitna élection lay jógee élection la ñuy jaar porox ndool wala ñu laar leader politique mu jug mais mën nañu moytu lool moo tax man si j'ai un appel à faire solennellement au président Macky Sall mooy mu accéder à la demande légitime de l'opposition en mettant en place un organe indépendant ou un organe en tout cas une personnalité neutre pour organiser les élections mm-hmm. ndaxte loolu bu ko deful day dem ba sax suñu compétence su ministre bi fay loo ci mënta wax euh, Aly Ngouille Ndiaye était un bon ministre de l' et même ki fi nekk nii ses capacité peut-être am na solo ci boobu déggee ministre de l' intérieur sécurité kese la mais boo ci dugalee affaire élection dugal ci politique rek mu daan parce que politique dafa laaj expérience donc wàllum élection mën nañ ko jël confier ko keneen un sage mu gérer ko mais li leen bàyyi ministre de l'intérieur ñu nañu li indi li ni mel euh, mu njaay moo di euh, suñu constitution bi ni ñuy jëlee di ko tripatouiller à volonté ba pare président Macky Sall nee nañu il est obnubilé par un troisième une troisième candidature moom moo waral peut-être rouage yi yëpp ngay gis calcul bi yëpp ngay euh, wax tey ji est-ce que vous partagez cet avis xam nga xam nga lu nekk ci bopp ma président Macky waaye mais par rapport à ces faits et par rapport ak li muy def dalalul xel ndax problème mu troisième candidature boobu à un troisième mandat lu mu war a évacuer la franchement parce que euh, jàpp naa ne même yonent sax dafa def ba benn moment mu dem am ñu yeggali mission bi lu dëgg kenn mënul matal lépp tey toog fi juróom-ñaari at de plus encore ñuy indi fitna même bu fekkoon yoon bi ñu bindee loi bi baaxul mën na ko may prox ndoll mu demander troisième candidature man dama jàpp ne intérêt Sénégal war na mën a tax mu tànn ci ay njoñam kenn wóolu ko jiital ko mu dem defante euh, politiquement avec les autres mhm. loolu mooy jàmmi réew mi mhm. tey da leer na da lay leer ne daf lay leer ne bu fi waxee waxu troisième candidature fitna na am ci réew mi yaakaar nga ko loolu mënul ñàkk. lu jël na ay matuwaayam te mooy ci renforcer mu am fitna xam nga lu Sénégalais yi mayul Ablaye Wade gëmuñu may ko président Macky Sall troisième candidature même même même ñu nekk ci camp politique am am na ñu si d'accord bu yàlla taxee rek ñuy wax am na ñoo xam ne ñu ngi ci àndax président Macky Sall guddee bëccëg mais d'accord ñu ci troisième ah candidature yi mooy lu wóor. boo toogee ñoom li nga dégg ñu koy wax parce que képp koo xamante ne nii nitu kàddu nga képp koo xamante ne nii nitu principe nga mais mënoo d'accord ci troisième candidature par exemple parce que mm-hmm. moom même bu fekkee ne par rapport à la lettre de la constitution c'est mal libellé mais par rapport à l'esprit de la constitution l'idée c'était que kenn du fi def plus de deux mandats que ce soit un mandat de cinq ans ou sept ans c'est pas important boo xoolee ay vidéo ñu mu fi def génn ko mu ngi koy wax di di di balak sax président Macky Sall ne julli gi ñaari ràkk la mhm. ràkk bu njëkk bi juróom-ñaari mhm. kabaar la ràkk bu stop juróomi kabaar la di wane ni affaire du problème ay nombre de mandat bi après nga sëlmal après nga sëlmal boo sëlmal nag ne la subhanallah mhm. donc moom tamit dañ koy wax subhanallah mais heureusement ba léegi waxu fi daal en tout cas waxu troisième candidature mais dañ koy artu rek ndaxte gis na moom war na mën a joxe exemple bu mag ci Afrique ndax am na chance su nekk euh, président boo xam ne mooy organiser mën na organiser élection xam ne du ci bokk te dem bu pare moom Sénégal jox na ko la président Macky Sall boo xoolee jaar-jaaram directeur de société. Euh, ministre ministre. président assemblée président assemblée nationale ba soog a nekk président kon Sénégal wàcc naa wax yow. warul benn deret wala benn bakken rot fi bu jóge ci acte bu muy posé ci Sénégal. Mhm. et puis loo ci mënti wax jot na def comme ni Ablaye Wade jotee def Ablaye war kenn mën na def na mais par principe ba fi Sénégalais yi ne def nga sàmmul te wax li nga engagé wu tey bu ñu amee ay route ay yenn infrastructure boo waxee dëgg rek ab Wade la. dam na ñu koy ooyee donc Ablaye Wade Sénégalais yi jëlewuñ ko fi parce que liggéeyu déedéet balaa liggéey na réew mi di mais dañ ko fi jëlee parce que li mu sàmmante li mu waxante woon ak Sénégalais yi mooy ñaari mandat ñaari mandat jot na personne n'est indispensable Macky Sall tam loo mënti wax kenn mënul na liggéeyul dara si réew mi li fi fekk yokk na ko ci Ablaye Wade waaye nag ñaari mandat lañu waxante woon ak moom day na na jël keneen xam ne ci ay njoñam am na ñu si war Mhm. jàmm am ci réew mi loolu da koy yëkkati day gën a yëkkati rek turam loolu je crois que ku ko jege war na ko mën a xelal loolu ndax loolu mooy jàmm réew mi. ñu ñaan yàlla mu dégg ko mais euh, dafa am leen loo xamante ne yéen société civile da ngeen koy xeex mu ngi jëm ci wàllub ger wàllub anam gi nga xamante ne la ñuy luubalee xaalisu réew mi. on a vu dernièrement l'affaire euh, des 94 milliards Ousmane Sonko Mamour Diallo. mbir mi yoon dafa mel ni daf cee raxas loxo moom seet ne ko yow tu n'as pas le droit de demander des poursuites wala de demander des éclaircissements par rapport a cet argent tey est-ce que suñu juridiction waral a guñu xool léegi kan moo am sañ-sañu kalaame ak ko amul sañ-sañu kalaame. moom laa suñu justice moom wax nañ ko sànq suñu justice moom dañ ko war a ndëppal ndaxte bi ñu tegee rek commission parlementaire c'est le c'est le lépp féete boor parce que bu commission parlementaire. affaire justice amatu ci yoon parce que ñaari mënuñu ànd. Mhm. donc bi nga gisee ñu teg commission parlementaire ci affaire boobu commission bi jurul dara ci nga war a xam ne ni affaire boobu du dem fenn je crois que même Sonko position de principe la rek lay continuer combat bi mais xam ne ne du mujj fenn te loolu loolu loolu baaxul ci réew réew buñ ci tegee ay ay ay principe danga war a top principe yooyu buñ ci tegee ay charte da nga war a topp charte yooyu. et je crois que bu amee coow lu jug ci coowum xaalis intérêt la état bi mu leeral ko quatre-vingt-quatorze milliards yi mais luy ndeyu ñu leeral ko ñu dem même si le faut mu nekk euh, ñu tijji ni information judiciaire mu leer nañ nañ day seetal mu mënoon am jàllo maa ngi naan moom la day seetal kii. Euh, Mamour Diallo Mamour Diallo ko dalal xelu Sénégalais yi et ça mais tant dossiers yi mel ñu ngi koy teg quatre-vingt-quatorze milliards du neuf milliards du neuf millions cent millions mais dossiers yooyu dañ ko war a teg leeral ñu mu leer parce que li tax ma ne intérêt Mamour Diallo la mu leer nañ bu jeex bu bu ko leerul léegi beneen nguur ñëw fi mun na ko suliwaat mu nekkat coow donc bu amee problème mu alal di tegu leeral ko mu jeex mu mu féete mais est ce à dire que léegi euh, sénégalais bi amul droit gis ne xaalisam ñu ngi koy jaarale fu dul noonu mu saisir les juridictions pour ñu leeralal ko ci fànn boobu mais kan moo habilité tey jii. kan moo sénégalais bu organisé am sañ-sañu dem di laaj ñu leeralal ko àllul réewam nañ ko yoree. xam nga waxuma la sax le budget de l' état wala yooyu mais même les ressources naturelles code euh, référendum mu mujj dafa ne appartiennent au peuple. réew mi xale euh, askan wekk moom loolu moom boo jàppee ne niñ ko yoree baaxul am nga sañ-sañu demande ci ay leeral mm-hmm. moo tax suñu combat bi ñuy def ci li ñuy wax euh, la loi sur l' à l' information yaa ngi dégg boobu loi loi boobu dina définir xoolal affaire avion présidentiel bi mm-hmm. euh, nëbb biñ ci doon nëbb montant bi pour lan dama ne loo xam ne ci àll ci alal askan wi la jógee war dellu ci askan wi askan bi am na ci droit ay laaj moo tax loi sur l'accès à l'information def nañ décret bi def nañ lépp qu'il faut mais promulgué guñ ko donc pour dire que waruñu ragal suñu nguur yi di leeral finalement te après euh, ministre euh, de des finances génn na leeral montant bi anu mu yàq dafa tax ñi ñuy calme rek biñ naan xaalisu euh, kii bi avion bi lii la jar lii la jar lii la jar. Mhm. mais coow dafa bëri woon tant que leeraluñ ko mais ministre Abdoulaye Daouda Diallo des finances bi mu génne leeral ko après coow li sedd na donc leeral dafa nekk exercice boo xam ne suñu njiit yi waruñu ko ragal nit ki lu mu xamul mu lay ragal donc nañu leeral wax ne. li leen jëndee avion bi quatre-vingt-quatorze milliards yi lii parce que montant boobu jógewul ci Sonko rek ci noonu Sonko bu waxee quatre-vingt-quatorze milliards am na fu mu ko teg. et il brandit des preuves. nee na ko procureur woo mais donc nit bu ne na ma procureur procureur dee ko. comment que ça le procureur de autosaisir. Hmm. tey euh, c'est quoi le problème est-ce que c'est parce que c'est un politicien wala c'est un politique moom moo tax mu am en face de lui. benn camp boo xam ne camp au pouvoir la moom moo tax que affaire bi mënul aboutir fenn. non xam nga fi on a l'habitude de faire un traitement sélectif des dossiers yow boo xoolee rapports yi les rapports bruts euh, mais y en a une centaine. Mm-hmm. rapports yi gën a siiw la rapport Khalifa Sall te chaque jour ya des centaines de rapports bruts bu dul Cour des comptes bu dul rapport IG e, bu dul yeneen rapport chaque jour y a des mais kan nga ci yan nga ci dégg rapport yi nga xam ñi nga xamante ne rapport yi nga xamante ne euh, sur le plan politique ànduñoo nguur loolu mooy traitement sélectif des dossiers loolu mooy une justice à géométrie variable loolu baaxul ci réew loolu ñu nekk ci nguur gi bi ñu nekk ci opposition dañ ko daan xeex seen corps de contrôle dans tout ça tey lan mooy seen prérogative bu fekkee ne corps de contrôle yëpp suñu paree seen jëmuwaay si président de la république la foofu fan la fa leeral ngay di amee lan mooy seen prérogative comment doit fonctionner nos corps de contrôle loolu mooy déjà par exemple dañu war a am benn cour boo xam ne mooy gérer les les trucs financiers xam nga on l'a le président même en a parlé mm mais nañ ko réaliser mais xoolal annoncé na ko xam nga benn euh, euh, comment ça s'appelle encore euh, un permet que du ñu def pression sur chef de l'État bu amee des dossiers yoo xam ne am nañu jàpp nañ ne am na am na njuuj njaaj mais le parquet financier jël ko traité ko un parquet financier mooy comme ci wolof nu laa ko mën a expliquer benn genre tribunal boo xam ne yooyu rek lay gérer. Mhm. bu ñu ñëwee ci ñoom du am pression yi ñuy def sax même bu boobaa ci chef de l'État ñu am seen liberté mais tant que chef de l'État bu rapport yi ñëwee ñi xam ne am na am na luubal fii wala luubal fee mu ñi koy luubal nekk xaritam mais nit ñi teg la aussi buy dawal xolam du def dara. bu fekkee ne aussi. sëriñ si sëriñ bu defee que ça doit prévoir lay wax rek bu defee ne aussi sëriñ si xam nga sëriñ si bu ñu intervenir xam nga on a eu un modèle interventionniste au Sénégal te à lui bi ñu tee Karim bi ñu tee Khalifa sëriñ si jug nañ wax lu dëgg donc il faut que ñu def ba nga xamante ne du doon président de la République mooy décider ci sooru des rapports. loolu tant que mu ngi am président mooy décider ci son rapport dina xool balaa o nit ki balaa fe yóbbu dossier nit ki ndax est que kii politiquement amul doole bu fekkee ne am na doole ah kii daal am na doole Podor wala am na doole euh, Tëngéej wala am na doole Géejawaay damay téye dossier ne ko kaay mu ñëw ma ne ko ah am nga fi njomb boo def nii de kooku bu bëggee mucc àndax président président am ci ay nit. ñaata lañ fi annoncé woon. le 23 23 ba dindi sax ay nit seen seen immunité parlementaire. mais ñooy fu ñu mujj bu dañu mujj a ànd ak est-ce que dañ leen dañ leen déggati donc bu président xame ne loolu euh, mun na ko utiliser pour yokk doolem politiquement en général dafay utiliser loolu la ñu war a dindi ba nga xamante ne doon président mooy décider sooru rapport yi mu am bu amee rapport yu compliqué yi concerné am homme politique balaa ñuy jàpp ne dafa leen di acharné am acharnement ci ñoom wala bu leen téye ñu jàpp ne euh, day politique moo tax mu jàppaleen ñu am un financier boo xam ne nag du doon du dépendre ci ministre de la justice mm-hmm. boo xam ne day am benn indépendance bi mën a def liggéey bi ci war ci wàllum yoon de sorte que bu ñu oowee am politique mu xam ne Sénégal parce que homme politique tam mhm. bu ñu ooyee homme politique bi euh, justice bu boobaa askan bi du ne dañuy politique moo tax ñu téye ko parce que nag homme politique yi am nañu ci def njomb tamit loo munti wax du ku ñu woo rek dafoo njomb. Mhm. mais boo defee njomb sax bu ñu la wooyee askan day jàpp ne politique la bu weccee bokkoo ci nguur gi. danaan mhm. day politique. boo defee njombe te bokkoo ci nguur gi en général tam kenn du la woo. loolu yëpp lu koy su dindi mooy xalaat boobu nga xam ne. partie financier bi annoncé nañ ko mais nañ ko concrétiser dina yombal lu bari d' accord euh, ñu ngi naan président utiliser des armes non conventionnelles contre Karim Wade contre Khalifa Ababacar Sall venons-en au cas euh, au cas Ousmane Sonko mm-hmm. euh, ñu bëri jàpp ne arme non conventionnelle également la utiliser mais mbir yi c' est une patate chaude entre ses mains ndax jàpp nga ne dina aboutir ak fan la jëmale réew mi après ce qu'on a vécu au mois de mars. affaire Ousmane Sonko si kaawu Adji Sarr nga bëgg a wax mhm. kooku li ñuy wax bombe à retardement la ndaxte ñaara mën a am ñu àtte ko ñu ne euh, moo def lii jéem ko bundu mu indi fitna ci réew mi beneen bi mooy ñu bañ ko àtte sonal ko neneen parce que yaa ngi gis ne ñu ngi téye mënul mënul voyage mhm. parce que mu ngi sous contrôle judiciaire ba kañ contrôle judiciaire yow doo dem bitim réew doo def campagne bitim réew xam nga donc mu ngi mel ni daan nañ ko rek te daanuñu ko parce que bu nit ki nekkee sous contrôle judiciaire ñu téye passeport am doo génne Sénégal doo rek daan la te àttee guñ ko alors beneen bi mooy euh, beneen façon daan bi mooy boole mun nañ ko boole Sénégal wane ne dafa def dara wala deful dara donc li ci am solo hypothèse boobu dans la tête des Sénégalais c'est écarté que ne il a fait je pense que les manifestations wane woon nañ ko mais tey jii cette affaire Ousmane Sonko aji sax a fait tomber beaucoup de têtes également et dans nos corps de défense également loolu tamit c'est à décrier voilà oui xam nga affaire kaaw mars bi mars mars bi jàngat ci mun a dafa bëri opposition comme pouvoir bu ñu fekkee ne ñoom ñëpp euh, jël nañ seen responsabilité ku ci nekk am nga fukki jàngat yoo ci war a mun def muy société civile muy acteur politique muy nguur gi muy opposition ku ci nekk rek mën nga ci def fukki jàngat xam nga premier jàngat bi ñu ciy def mooy benn mooy un acteur politique au Sénégal bu ko nguur bëggee euh, bundu xatal yomb na trop parce que accusé dafa yomb mën nga jël n'importe qui mu jóg ne nit daf ma violé tey même bu fekkoon ne kon ko aji saa xamante ñu sax nit mun na jóge fële nit nit daf ma violé benn muy jàngat mais beneen bi aussi beneen jàngat contraire bi mooy boo nekkee acteur politique da nga war a xam tamit fooy teg sa tànk parce que surtout bu dee bu dee yow. doo n'importe quel acteur politique parce que Sonko loolu ci mënti wax du n'importe quel acteur politique donc war na xam ne ñi mu jàkkaar lool moom la ñu gis ñu ko leen ñu ko mën a sonal war na xam tamit moom fu muy teg tànkam du dëgg damay jox rek ci ay jàngat muy ñaar ñetteel bi mooy suñu justice bi tëddeewul ndey ndey ji seex ndaxte boo xoolee euh, Euh, nu mu tuddati euh, contrôle judiciaire bi ñu jox Sonko pression de la rue moo ko indi c'est pas parce que lu juge bi bëgg la décider ko boppam c'est la pression de la rue moo tax Sonko tëddul tey wala teyuñ ko en détention provisoire pourtant muy Khalifa muy Karim bu ñu leen woowee c'est presque ay accusation la woon mm-hmm. kenn atteegu leen mais dañ leen téye def leen détention en détention ça ça veut dire que amaana bu amoon pression de la rue boobu du dëgg duñ leen téye mm-hmm. benn ca veut dire que justice warul fonctionner ci ay pression de la rue et ça veut dire que donc ëllëg mën nañu téye mën na beneen kilifa muy sëriñ wala muy leneen def dara tooñ nit ngóor ne tooñ nit rey nit wala dara wala rakkam wala doomam wala dara rey nit wala def njombe ñu jàpp ne buñ ko téyee dina am coow ñu bañ ko téye loolu danger yooyu moo nekk ci histoire marché bi c'est c'est pour dire quoi que suñu justice gañere muy ñi ko yore tey te suba ñi fi nekk ci opposition war ko yore gañere à que ñu def li ma lay wax réformer ko de sorte ku ñu oo ñu xam ne dañu la woo parce que dañ la war a woo mais woowu ñu la parce que da ngay def politique. Mhm. mais tey bi ñu oyee ko ñëpp jàpp seen xel ñaaw parce que xam nañ ne bu demee mu ne fa profité faagaagal ko. Mhm. loolu baaxul ci réew. yeneen yi mooy ci wàllum sécurité ci dëkk bi lii am mars mu ngi soog am Sénégal daan na am manifestation mu yem ndakaar laal Thiès tuuti mais mu am manifestation ci dëkk bi yëpp. booy def jàngat ñi génne du sax rek Sonko moo leen taxoon njéen génne dafa am yeneen message yu ñu doon jàllale aussi message yu sonn coono message yoronu réew mi ci wàllum euh, peut-être euh, gouvernance ah yeneen yeneen yeneen message yoo xam ne nguur gi war na ci tiire ay enseignement tirer ay enseignement mm-hmm. réponse bi warul nekk rek xaalis du bu jeunesse bi génnee rek def ay manifestation nga jàpp ne dañu soxla xaalis nga def ay programme mu xaalis programme mu jox du état moo war di jox alal xaalis parce que loolu du du du du emploi durable <coughs> du dëgg réponse bi réponse boo xamante ne dañ ko war a étudier lu tax suñu jeunesse bi amuñu xëy lu tax amuñu ay xëy lu tax ñu jël gaal di dem boobu mën a mer à ce point gis nga dañu war a delluwaat ci suñuy ressources naturelles xam ne problème bi du rek problème mu ñàkk xëy bi du problème mu rek parce que formé wu leen wala euh, tooy na wala woon na mais déjà suñu géej gi ñaata nit la daan dundal ñooñu ñi mu daan dundal ñëpp ñii di liggéey ci affaire napp ji ñii di liggéey ci affaire transformation produit halieutique bi léegi bu demee ba pour ñoom ñu am jën dañuy dem ba ay dëkk yi ñu jot ay Mauritanie ay ñeneen parce que Mauritanie sa ñëwoon accord de pêche ak kii. Hmm. war nañu xalaat lu tax lu tax Mauritanie seen géej gën a naat suñu bos parce que elle est moins sollicitée kenn exploité wu ressources yi comme ni ñu koy exploité fële. avec les licences ñun suñu bu njëkk amul woon chômage ci suñu culture africaine yi parce que nit ñi dañu organiser woon en métier loolu dañu war a suuxal. tey jii daan am ñii ñooy ràbb ñii ñooy ñooy defar dàll yi ñii ñooy ñooy ñooy def tëgg et cetera amoo woon chômage alors bu ñu ko jëleen boole ci nag formation wala demee boo jëlee ñii artisan yi xoola ñu nekk ci cordonnier yi ci nekk nekk ngaay boo forombe expérience yi ñu am potentiel lu ñu am mais pourquoi duñ leen accompagner s'il le faut ñu def fa usine nii yëpp luñ dàll yu jóge ci soldaar yi dàll yi dem ci sapeur yi ñu koy defaree fii je pense que bi nekk ngaay ñooñu ba ñu leen formé woon encadré tijji fa usine boo xam ne suñuy dàllu soldat yi loolu rek mën a nekk. benn marché benn marché. nga jël ñu nekk ci ñu nekk ci sunguf si di di di dëpp cere di dëpp. araw araw ñooñu mën nañu dundal ñi nekk si suñu quartier maanaam militaire yeeg sapeur yeeg policier yi problème organisation la ak gëm suñu bopp xam nañ am nañu ay. meññeef yoo xam na mën nañu dundal di ñu dundal di joxaale liggéey xëy xale yi. mais tey jii euh, yéen ñi xeex euh, ak ak yelleefu doomu aadama ci événement yi tamit ay bakkan rob na ji jusqu'à présent on n'arrive pas à situer les responsabilités mm-hmm. yéen société civile yéen a war a euh, indi dal yéen a war a indi jàmm parce que ngeen ne féetewu leen ci benn boor mm-hmm. ci ponk boobu itam tey jii lan ngeen di xaar pour àddu ci pour mbir yi gën a leer ndax pàcc bu nekk yaa ngi jël mbir mi di ko féetale sa morom. ñun bi mbir mi amee dem nañ gis président Macky Sall mu recevoir ñu ñu wax ko pour mu def commission d' enquête indépendante annoncé na ko en conseil des ministres il un mois ñu ngi xaar mu teg ko avec parce que commission d' enquête indépendante xam lu muy indi du ci day tax organisme internationaux yi duñ si dugal seen loxo ci mbir moomu ay ay comme comme Cour pénale internationale ak yeneen organisation yi nga xam ne nekk ñu bitim réew ñëw di bëgg a juger suñu réew la ñuy fonctionner ñun fo loolu suñu plaidoyer bi ñu koy rencontré man Majid Ndiaye Babacar Gueye ay euh, ak waa RADDHO Niass loolu dañ ko wax pour que bu amee commission d'enquête indépendante muy yëfu Sénégal. est-ce que rencontré ngeen également l'autre partie. mais bien sûr ñu si bëri yoo xamante ne nii euh, tax na mu am dal à cause de nos rencontres waa m waa même marabu yi parce que bi bi mbir mi amee objectif bi moo doon jàmm dal jàmm am c'était pas ku tooñ dina histoire dina toll foo xam ne doo laajte ku tooñ. mais est-ce que ces mots doivent rester impunis. non mais euh, elles pas normalement rester impunis parce que on va continuer de demander que ça soit clarifié parce que aussi loo ci mënti dégg buñ ko réglé wul ci régime bi rek day ñëwaat. donc intérêt la même pour régime bi mu régler ces question là parce que ça me permet de poser le problème des milices xam nga tey tey jii booy xool da ngay tiit le fait que mu milices yi commencé jóge ci biir nguur gi xam nga milice mooy indi ay guerre civile yàlla bu ñu yegg foofu Sénégal parce que yow boo nekkee euh, ci réew nga yore réew ma mais war na doyloo force de défense et de sécurité yi muy gendarmerie muy police ñu assurer sécurité yow sa bopp ak sécurité lépp ñoo xam ne officiel la. Mhm. mais bu demee ba yow ñooñu doyatuñ la nga dugal ci ay milices mooy indi ñi nga jàkkaarloo créer ay milices xam nga boo xoolee dëkk yi am defante yooyu yëpp ci lii la jógee ay milices. mais tey jii euh, milices yooyu découlé na tey ba tey jii président daal Sall j'en profite pour votre émission pour dire que na mettre un terme na def enquête. ci affaire ministre yi xam ministre ñan ñoo koy def. war na ko xam d'ailleurs mais lu ne fànn kenn du ko jeex. Euh, mu ñaay soxlatul enquête wala pour. Euh, su wax enquête mooy xam nañ milice yi mais xam ñi nekk derrière ministre yi euh, milice yi maanaam les identifier les sanctionner de sorte que du créer benn réaction de l'autre côté parce que je vous dis par expérience bu nguur demee ba am ay milices ñu koy topp day indi. opposition di créer ay milices muy indi nag defante bu demee ba mu ba mu gën a sori ñii dañuy naan dañuy dem ba nit ñi di armé wu mhm. bu armé woo amee nag loolu luy indi yàlla nañ ci yàlla musal on va accélérer la cadence parce que waxtu bi en responsable du président Macky Sall mooy demander ko problème ministre yi yi na ci mettre un terme et dans les plus brefs délais on va accélérer la cadence ndax liñ desee ci ay minutes bëriwul tey j'ai beaucoup de questions euh, beneen bi mi ngi aaju ci est-ce que tey jii le Sénégal a des terroristes wala y a la présence des terroristes pour ñu mën a accélérer benn loi boo xamante ne cette loi est jugée liberticide par certains ndax jàpp nga ko et on a entendu Ahmed Khalifa Niass dire que ne Mohamed Chafi, c'est un des collaborateurs du président Macky Sall, celui qui parle à l'oreille des terroristes mën na di collaborer ak le président Macky Sall. waaw xam nga loolu aw ma ci preuve ma ci wax aw am nay terroristes au mais c'est toujours bien de prévenir le terrorisme parce que terrorisme fu mu dóor fu mu defee attaque bàyyi fa ay séquelles parce que ay innocents la ñuy laal mais c'est pas une raison. nga jël loi bu mel nii si code pénal code de procédure pénale sërësal ci ay ay ay ay ay ndéggi séeréer c'est pas normal droit boobu bu mel noonu bu important yi noonu nga xam ne ça peut concerner l'avenir des acteurs des acteurs politiques et l'avenir de personne parce que tëj la à vie à perpétuité loolu du du mooy jël nit ki rek rey ko loolu lañ ko war a waxtaane mais loi bu jaar en procédure d'urgence bu mel noonu warul jaar procédure d'urgence à l'Assemblée waroon nañ ko jël waxtaanee ko ci gox yeeg gox xam ne ñun ñi xam lu ci nekk parce que ñu ngi koy wax mais ñu bëri sax xamuñu lu ci nekk. Mm. alors dafa bëri ay ay ay ay ndéggi sërëx yu ci nekk yoo xam ne askan wi ci boppam xamuñu enjeu yi li li nga li ñuy jëkk a mooy jàllale loi bu mel noonu en procédure d'urgence dañu war a arrêté Sénégal loi yi muy jaar am procédure même code électoral procédure d'urgence fa jaar loi war procédure d'urgence exception la war a doon. mais ça commence à être récurrent nekk nekk nekk léegi la la règle loi yi gën a am solo Sénégal code général de collectivités territoriales bi ñu koy jàllale en procédure d'urgence code électoral bi en session extraordinaire parce que assemblée jamono tëjoon nañu mhm. mais pour luy ndey roor dañu war a mën di planifier les choses loi Rousseau parlait de la double universalité de la loi Jean-Jacques Rousseau en ce sens que doit partir de tous et s'applique à tous elle doit sa partie moo tax mu daan wax double ouverture ci askan wi la war a jugee bi la a jugee parce que ci askan bi lay dal bien ndaxte nit ñi ñoo jël ci seen liberté bàyyi ci tuuti muy volonté générale mm-hmm. pour dindi ci seen indépendance pour ñu dem vers un monde de liberté liberté nag ça veut dire que da ngay bàyyi tuuti ci sa indépendance. Mhm. mais loolu dafa mu tey la gën a nekk actualité bi ko Rousseau di wax mat na ñaata ñaata siècle. d'accord donc pour dire que loi assemblée nationale balaa mu koy voté war na fexe askan wi xam lu ci nekk mais député yi ko voté sax xamuñ lu ci nekk ci ñetti fan ñu jox leen ko. wóor na ma ne boo defoon sondage sur les cent soixante cinq députés bu amee dix yi lire loi bi A ba Z dañ di wàññi. dañ leen di wàññi. te loi yooyu loi boobu dafa am. du caaxaan dafay. répercuté si viwu nit ki. Mhm. Euh, ci beneen point bi on parle de troisième vague de Covid 19 tey euh, ndax yaakaar nga ne euh, troisième vague am na wala vague bi fi nekkoon ba léegi mooy wéy on n'a pas su contenir la propagation. il y a eu des moments de faiblesse dans ce pays dama jàpp ne ma faiblesse yi c'est à tous les niveaux niveau état niveau citoyen yi aussi niveau même autorité religieuse yi dans tout à tous les niveaux parce que dañoo teel a naagu te ku naagu daagu ku daagu ñu romb la demoon na ba nga xamante ne ñun dañu daal citer en exemple ci ni ñu gérer Covid bi n'est-ce pas. Mm-hmm. ñu jékki-jékki au niveau état ñuy def ay tournées économiques def ay meeting avant les tournées économiques. tu as euh, vu que am na ay meeting à Podor et un peu partout mhm, ñu ne déet nguur gi di def ay tournée économique bu defee tournée économique doon mun tere meeting ñe l'opposition l'opposition benn muy loo xamante ne pour moi mënoon nañ ko éviter parce que mënoo wax ne yow da ngay joxe euh, euh, le bon exemple en commençant par faire ça je crois que ça a été une tournée économique là wala mënoon nañ ko def avec un personnel réduit beneen bi mooy nga jël jàkke yi mais jàkk yi da ngay taxaw man arrêté naa fan yi da taxaw te kax nit mu nga takk masque moom du takk masque mu ngay sëqët jàkk da ngay gis sëqët lépp fermé nga nekk ci tap yi muy sëqët tu vois ñu waxoon ne dañuy tëj jàkk yi un moment ñu tëj leen am jàkk ñu tëj am ñu tëjul yeneen jàkk yëpp tëji ça aussi c'est un problème suñu suñu si wàllu religion mais yàlla tegul kenn lu munul Ahmed Khalifa Niass wax na ko fi te il est d'accord avec lui alors parce que li li exigence bi mu laaj ci jàkk yeeg jumaa yi. Mm-hmm. peut-être am nañu ko si mën def mais am na ci ñoo xam ne quelle que soit leur volonté boo xasee ba tax wax nit ki ngeen di julli buy sëq du ko tey da koy fàtte sax du ko tey ba bay mën a def as geste barrière yow tu chopes la maladie nga dem jox ko ñeneen ñi chopé la maladie. mais tey euh, nos structures sanitaires ne peuvent aussi pour man à un moment donné dañu arrêté sensibilisation bi di communiquer ci. cas yi ni mu wàññee ko pour dire que les responsabilités sont partagées l'état nag moo war a redevenir fort jëlaat les les les les les choses en main xam nga ne fu mu toll nii nguur gi xalaatu fi wax ku wur fa wala état d'urgence boo fi waxee ñuy jëm ci élection xam nga dafa nekk loo xamante ne. ah mais est-ce que la politique doit prendre le dessus mais euh, xam nga bu fekkoon ne moom bu fekkoon ne nguur gi joxewul deful acte yoo xamante ne nii méngewul ax loolu mais xam nga tey jii tournée économique gu Macky Sall mais day tax mënul tey ni opposition mënoo leen def ko meeting beneen bi mooy mënoo ne yow da ngay dem élection te du am campagne ban élection ngay def te du am campagne électorale mënul nekk. donc donc pour dire que situation bi dafa laaj nguur bi jël recul bu baax gën ko saytu mu àndax sensibiliser autorités religieuses yi. maanaam njiit njiitu diine yi njiitu tarixa yi sensibiliser yi ñi nga xam ne ñoo nekk ci gox yeex goxaan yi ci ay notable sensibiliser acteurs politiques yi ñu xam ne fi ñu jëm nii rek ñuy delloowaat ginnaaw parce que on recule boo xoolee aujourd'hui des cas de décès yi mu ngi yokku cas de contamination yi mu ngi yokku d'accord yaa ngi toog xam ne yaa ngi sufet <laughs> heureusement. respecté nañu geste euh, euh, bari mais la dernière question ndax heure bi jeex na tàkk euh, mu Ndiaye. moo di ne boo demee dagg ko. Oh, waaw. <laughs> xam naa boo demee di non non non du ma ko dagg ci laa koy bàyyi ci biir ñëpp dégg ko la dernière question moom moo di ne société civile. Mhm. ñu bëri dañu jàpp ne au Sénégal amuñu société civile bu neutre on a une société civile partisane. Mhm. mais loolu parce que tey jii itam ci euh, ci euh, ci dialogue bi ngeen xam te ne yéen a nekkoon facilitateurs yi ñu bëri jàpp ne seen liggéey euh, jëriñu ko woon dara bu mm-hmm. fekkee ne y a eu plusieurs points d'achoppement waaw xam nga société civile moom ba ala kuli alin am moment nguur gi jàpp ne ay politiciens lañ ne ñi ay opposants lañ loolu du ñàkk ala kuli alin dina am moment opposition bi jàpp ne yaa ñun dañoo jegeñ nguur loolu c' est normal loolu ba société civile day am ba léegi loolu mu si dégg Ablaye Wade fii taxaw na fi ne ay opposant encagoulé ministre euh, Souleymane Ndéné Ndiaye wax na ko fii ba léegi am na ñuy wax ne opposition société civile ay opposant lañ mënul ñàkk du ñàkk aussi am ñu si modéré tuuti ñu jàpp ne wala ñii dañuy raay Macky Sall et cetera loolu du lu ñàkk c' est comme dans la presse du ñàkk ñuy wax presse bi c'est une presse yi entre guillemets presse bi dañuy dañuy dañuy rouler pour diw waa presse bi ay opposant lañ wala ñu ne presse bii kii la àndal ñu ne tey jii groupe bi kii la àndal yooyu mënul ñàkk li am solo mooy man sama bopp laa xam sama bopp laa mën a waxal mm-hmm. man musuma jël parti carte parti politique bu mu si doon benn musuma euh, wax lenn loo xam ne teguma ko ci principe xaaruma dara ci opposition xaaruma dara ci nguur ba fu may toll nii may wax yow mu suma xaar dara ci nguur ci privilège wala ci avantage du dëgg. Mm-hmm. ba fu ma toll may wax nii sama doole laay daan di ko def et société civile moo tax ma koy wax du métier man ma inspiré ma dugg ci société civile mooy ñoom maître Adama Gueye biñ ci tolloo. Mm-hmm. avant ñuy def politique avocat la nest avocat am teraangam di liggéey soo a nekk société civile. Alioune Tine bi muy nekk société civile si diggu ndëndam professeur d'université la di am salaire am di def na donc man sama métier du société civile engagement la à part man sama mm. métier ça n'a rien à voir avec la société civile engagement individuel la kenn bu la ci fay dara man sama métier expert la en décentralisation geste expert en management de projet ñaata ONG ñoo fi nekk ci mm-hmm. Sénégal di liggéey di am seeni activité di ci loo te duñu wax sax si si wax lu jëm société civile. d'accord donc pour conclure. Uh-huh. société civile du métier. conviction la engagement la. d'accord xaaral ma ci man dërëm. Uh-huh. nekk loo xamante ne gis naa ne war naa mën a apporter sama contribution ci ni Sénégal di doxe ma koy def. dina am moment ma bàyyi ñeneen ñëw continuer ko. mu ci d'accord d'accord mu Mouniaye euh, Cissé moo doon euh, suñu invité euh, seen émission sorti waaye notre rubrique avec notre analyste tey ñu jël Mame Birame Wathie di njiital Walf Net mu analise ñu waxtaan bi ñu sekk ak Mouniaye Cissé. waaw ñoom mën nañoo vraiment rafetlu seen taxawaay. jàpp naa ne souvent euh, société civile bi bof de manière générale ah, ñi nga xamante ni ñu ngi ci yëngatu souvent am nañu benn gëm-gëm bi par rapport ak lu ñuy def seulement man réserve yu ma am nekkul par rapport ak ñoom mais par rapport ak ki leen woo ci dialogue boobu parce que dafa mel ne ñoom souvent dañuy servir de faire valoir maanaam dañ leen di woo pour mën a justifier légitimité benn action soo seetloo dialogue bi ñu def nii nekkul premier dialogue bi y a eu un premier dialogue avant Macky Sall ñu koy fal en 2019 te boo seetloo aw Diom Ndiaye euh, li nga xamante ni doon nañ ko discuter ci dialogue boobu noonu dialogue bi nii deuxième bi ñu ngi koy discuter waat ma jàpp na bu nekkoon dialogue bi séré woon na dans un première temps avant 2019 xëy na point yi nga xamante ne nii tegaat nañ ko tey di ci waxtaan doon doonu ñu woon ko def ce qui tout simplement que ki nga xamante ni mooy woote dialogue boobu dafa am ay objectifs yi nga xamante ni tax nañ koo jóg yooyu la bëgg a te de mon point de vue warul mën a jaar ci société civile bi pour atteindre ces objectifs là. Euh, société civile bi seen rôle également yemul rek euh, ci wàllu langue politique bi mais également question de sécurité réew mi wax nañ ci àddu question de justice bi également war nañ ci àddu te ñoom saa su nekk ñi ngi décrier fonctionnement justice bi. waaw tout à fait mooy li ma doon wax tout à l'heure rek seen taxawaay véritablement à un moment donné dangay ngay jàpp ne sax champ politique bi nga xamante ne ni ba yenn discours yi nga xamante ni dañ ko doon xaar euh, ci homme politique yi par rapport ak yenn situation yi ñoo ñu xaar ci ñoom ñu prononcé aussi éventuellement ñu dénoncé ko taxawaay boobu gisuñu ko dañoo gis ne véritablement ay Seydi Gassama ngay dégg souvent ay euh, euh, comment sa s'appelle Alioune Tine ngay dégg souvent donc mu nekk ak Moundiaye Cissé boobu noonu mu nekk véritablement de des des sorties de réactions yoo xamante ni elles sont véritablement salutaires bu yàggul dara dégg nga force de l'ordre yi ñu ne am na ay nit yoo xamante ni dee nañu dans les commissariats ñoom ñu génnee communiqué di véritablement ñiyee ne ay torture dafa am dans les commissariats réaction les droit de l'homme comme ni ñu leen di woowee muy waa société civile boobu ça n'a pas tardé ñoom wax nañu effectivement li nga xamante ni moom la xalaat ci réaction police boobu wax que effectivement am na ñu bëri ñoo xamante ni ci commissariat yooyu la ñu te jusqu'à présent kenn leeralu ci circonstance yu ñu faatoo. Euh, société civile ñu leen di taxé d'opposants également. waaw souvent loolu ñu koy wax mooy ñi nga xamante ni ñoo far si nguur gi parce que yow boo nekkee au pouvoir société civile moom ñu nekkal fi ñëpp yaakaar naa ne boo defee loo xamante ni teguloo ko ci yoon société civile ni ñuy xaar si moom mooy mu wax la véritablement que ne loolu nga def teguloo ko si yoon mu nekk opposition comme mu nekk au pouvoir léegi nag souvent lu ñu gis mooy que euh, euh, ñi nga xamante ni ñoo nekk au pouvoir à chaque fois que kenn yëkkati na un discours qui va dans le sens contraire de ñoom seen i bëgg-bëgg ñu diaboliser la taxer la de lii ou de la alors que li ñuy fàtte mooy que avant politique avant société civile ñun ñëpp nous sommes des sénégalais donc dëkk bi ni muy doxee ak li fi xew dañ ko war a waxtaan. la posture de Moundiaye Cissé naka nga gisee taxawaay waaw Moundiaye Cissé dama koy dégg souvent muy exprimer wu par rapport aux élections te je pense que day jël. des positions assez courageuses mais mooy li ma wax sànq rek au départ moom malgré sa bonne volonté nu mu tuddati lu lépp euh, loo xamante ni xalaat na ko pour lu baax euh, de mon point de vue bu desoon si moom dinañ ko def jusqu'au bout seulement moom amul décision xëy na day bokk ci benn kuréel goo xamante ni ñëpp dañu toog waxtaan te waxtaan boobu ñuy waxtaan li ci liñ ciy tënk comme dialogue bii nii président Macky Sall boo fa ca ñoo ba moom mooy décider donc dafay mel ni ñoom dañuy accompagne processus bi te au final amuñu pour jël décision.